Amen زانين barakaatu mbokk yi jàkkaarloo ñun ci dañu seetaan cay bàyyi xel seen site internet bi Touba Vision ñoo ngi amati mbégte kontaan te di ñaanal xalif Mbàkke di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ba mbooleem ay naalama ki sumba mu àggale ko defe ko nu kawe njortam waaye tam na di ziar bu baax mbooleem njaboot ak Seexul Xadim gépp rawatina Serigne Ahmadul Muxtaar Mbàkke mi nga xam ni moom lañuy ñuy xoole tey jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha ji waaye itam di ñaanal Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma waaye itam ki mooy kilifteefu borom kër gi tey di sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed borom Nebo ji di ñaan yàlla dooli ko tawféex baax a baax mbokk itam ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu yu siyaar yu tedd di ko teg ci xool ki nga xamante ni euh, moo di sëriñ Thierno Kayre mi nga xam ni moom la ñu xool tey jëmmi sëriñ moor Kayre ji di ñaan yàlla dooli ko tawféex baax a baax ak mboolem njaboot ak sëriñ Mor Kayre gépp mbok yi nag tey ñoo ngi fii ci bis bu mag bis bu tedd bis bu am solo bi nga xamante ni mboolem njaboot ak sëriñ Mor Kayre gépp ñoo ngi koy fàttaliku seen maam ju tedd ja di Serigne Mor Kayre werekaanu Cheikhul Khadim Khadim Rasoul wa le at mu jot nag muy nekk fukki fan ak ñaar ci weeru koor wi tey jii nag mu tombeeg altine fukki fan ak ñaar ci weeru koor waaye tam tombeeg altine ba tey ñetti fan ci weeru avril ñu koy fàttaliku fii ci Touba Daara Khoudous ci teewaayu Serigne Thierno Kayre ni ma ko waxee ak mbooleem njaboot gépp ak daawaayir yi nga xam ne ñoo aju ci biir kër Serigne Mor Kayre nekk ci biir réew mi ak bitim réew waaye itam soppe yi nga xamante ni ñooy soppe sëriñ Maam Mor Kayre Xasaayit ndax sëñ Mor Kayre Xasaayit mi coordonnateur màggal gi jiite ko ca ay magam wóolu ko dénk ko lépp loo xamante ni moo jëm ci organisation màggal gi mu ngi fi àndanteeg mboolem soppe sëriñ Maam Mor Kayre yëpp ci ay xasida waaye itam ki nga xam mooy soppe sëriñ Seexuna Mbaj naka noonu ak mboolem jànkati xasida itam seen taxawaayu am solo yi nga xam ne euh, am nañ ko ci waaye itam ci teewaayu kilifa fasantikoo yi nga xamante ni ñoo fi teew ci ba léegi mën nañ cee ràññee sëriñ Sidi Ñang moom sëñ dëkk aw Balla Niang ak mboolem njaboot ak sëñ Ahmadou Fadiama Niang gépp waaye tam ràññee ci ay kilifa yi fasanti ko yoo xamante ni ñooy daayira Touba li Abdil di daayira bi nga xamante ni moo lëkkalee sët ak sëtaat gi nga xamante ni ñooy euh, sëti seex yi naka noonu ci am teew nañ bés bu am solo bi nag tey sëriñ Mor Kare da koo jël duppee ko ki nga xamante ni bii moo di sëriñ Ablaye mbay Peex géelu Xaadim Rasoul waaye itam toftal ci ki nga xamante ni marraine bi soxna Momi Kebe moom tamit di kenn koo xamante ni ñëpp ràññee leen jëfam ci kër Seexul Xaadim waaye ba ñu bokk ci ki nga xamante ni bii moo di Arona Coumba Ndoffène Diouf di sëtu buur seen Coumba Ndoffène Diouf moom itam monsieur le ministre bokk ci ñi nga xamante ni bii dañ leen jagleel bés bi tey waaye itam Ahmad Laat mi nga xamante ni kenn ku ne xam na digganteem ak sëñ Mor Kayre ci yëngu ci xasida yi waaye itam tey jii ne mu nekk fee ca sow amal fa liggéey am solo yoo xamante ni ma ngi ko fay def moom itam bokk ci bis bile kon nag mbokk yi ci kanam tuuti daañu ànd ak yéen ci ay reportage ci ay témoignages lépp nag jëm ci waañ wi ak doxalin yi nga xamante ne dañ ko am waaye itam ay témoignages jëm ci jëmm ju tedd ji nga xamante ni bii moo di Serigne Mor Kayré naka noonu itam mbooleem ñi nga xamante ni bii ñooy sédita dañ ci am taxawaayu am solo ak jànkati xasida yi kon su ko defee ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci waañ yi ànd ak yéen ci reportage ak i témoignages incha allah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين خير المخلوق barke sëñ Tuubaa barke sama sëñ Mor Kayre barke sëñ Tuubaa sëñ ak sëñ Mor Kayre barke sëñ Tuubaa barke sëñ Mor Kayre ah waaw man dey màggal gi moom mel na ni xaw naa ci am ab diir ndax bis bi nga xam ne bii day ki ñuy màggalal bàyyi ko ni ci jamono man koo tege ti bët ni nga mel ni tey jii ma tooge bisub dibéer la woon di fukki fan ñaar ci aw koor ñu julli tisbaar bay waajal takkusaan ma dégg dëkk bépp yuuxoondoo nun nag dandaa dem ci moom naa ko maam maa ko mu dina may dërëm ak dina may di yee bu yéeyee gura ba noppi fab gu rek jox nu ne na barkeeloo leen bu ndikkee ne maam maam maa ko jox nu barkeel mu ne ew waay ndaw jox ma ci lu barkeel nuy da mu naa de dimbali ma daal lay maye fifteen ne la may ma ci la da sama may kere ba mu wàccee liggéey nag oto bu rëy bi ko jël si nga xaa aarif la sëriñ Seex yónnee oto bi mu ñëw ne jël si sëñ Mor moom mais yóbbu ko Touba damaa tàccu man daan ne oto bu rëy ñëw na ci dëkk bi ndongo maay mi nga xam ndongo mbaay mi nga xam ne sëñ Bass moom la jëkk am ci dongo moo ne sama nopp bi tëll mën a këpp di jooy dajeeg sama maam mu ne maa waa tey de kay de war ngaa jooy ndax kenn du ne looy jooy de boobu man yaakaaral ne sax moom defoon naa ne wan ku dul faatu la sax man laa ko tegal ba ma demee ba nga xam ne bi jant nag ñu naan daa wàcceeb liggéey daa wàcceeb liggéey laa door a xam ne kon faatu la bis boobu ba tey jii nag yàlla ngi may dimbali may fekke màggal yi a ah, yéen jëkkan di màggal ca kay fekke naa ko yan xari bii sëñ Thierno moo ko doon def ba mu ko yóbbee jol naa ko ba ko yóbbee ñoo bi ndoon yi fekke naa ko bi mu dikkee Touba gii fekke naa ko nag nan sant yàlla nun ñëpp nun taalibe yi ko fekke ndax bari na ci lu mag ñi waxoon ñoom xamuñu ko ndax ñoom fekke wuñ ko man mi maa ko fekke ndax kër gii day biñ ko dooree rëdd ci sama kanam la maag Abdou njaay ak seex njaay mii ak Ibra Ndiaye xer yi ko doon gor yi ñu gor a woon di ko fi andi xer yooyee Abdou Ndiaye ci la gaañu woon ci dënnam bii kon nag mel na ni kër gi kon mel na ni am na lu ma ca xam ànd gi nag yàlla nu ko defal ndax Mamor Kayre moo ko taamu woon Mamor Mbakke kere ba muy dem gànnaar la ànd ak sëñ Mor Kayre ba mu demee sëñ Mor ne ma Mamor Mbakke ba sëñ bi yëkkatee lu mel ni wattu ca néeg ba mu ànd ak ni ay sang lañ wala lu mel ni ay saxa yu am na yu yëngu daal ci biir euh, lekk gi nag njóor ni la doon wala ñu njóor ni lay doon wala baraay nee xamun lu mu ci doon taam ay dugub la nee na maam Mor moom bu tibbee day seex rek tànn lu dund tànn lu dee nee na maam Mor Kayre moom bu tibbee day xool li mu tibb bu ci gisee luy dund mu bàyyi ko fi suuf ba mu noppee mu ne ko ah moom Mor yow kon da ngay tànn lu kon des na la tànnal léegi na ko léegi na ginnaaw yow dañeen te dongo yi am na ci ñu doyati gi daal yëkkati kaamil alxuraan jox ko ne ko demal ca daaje boo demee la ma fa lay sas liggéey yow ku fa bëgg a xam lu nga xamal ko ci fànn gu ne ndax booba moom xam na hadiis ak alxuraan ak dara dara umpu koon moom waaye nag bokk bokk bëgg a bokk sëñ Tuubaa rek ci moo ko ci andi ba mu ëgg see sax ne na ko Mamar yow da ngay dolli ko si wala da ngay laaj si mu ne ko man Mbàkke damay seey si loolu la ko wax foofee ca gànnaar mu jox ko téeméer bi boo gisee ñu wax maxtume yi foofu la maxtume jóge mu daal di jël dërëb bëy aw ko ci téere bi takk ko bañ kenn ku laalab téereem buy jàngale di ci jàngale buy jàng di ci jàng bu ku mujj lu waaye mokkal sa saw jàng boo ko bindee ay kayit daal di wut sa dërëb bëy yow def sa dënn muy sa téere noonu la boo moo defan maxtume yooyu ca daara ja loolu nag ba fa jógee ba ñëw fii ci Sénégal gii da ko ne nag Momar mu ne ko ah mu ne demal sa askan ba nga jóge woon bul jàdd fenn nanga dem bàgg fa nga jóge woon ba ñu yëg ni ñëw nga koo yëg ni ñëw nga ku la teg bët ko ne ramm nga ko nii ñu la ramoo na nga koy ramoo yow it yow mal xiyaam dootu am lenn lu leen di jaaxal yow mal xiyaam na nga àgg nag bu la dara tee mën a àgg luñ la mën di wax ak luñ la man def yow na nga àgg ba muy jub kër ga ni yaayam daa soxoog fetal ne moor bu duggee ci kër gi dama koy fetal nii mu mel ci xam nga xam ne koy xam dara laaj ko mel ci addis doomu aadama mu jóg ci moom naa dem ci doomu aadama damay def lii ci moom walaay dama dem loolu kooku moom daa dof daa ma ko fital bi mu demee ba di ko jub mu xëcc xëcc fita gi mënta tàkk mu dikk téye ci fita gi ne ko jaay fa ma deman mooy dëgg fa ma demoon dama leen di xeetli si rek waaye ab dëkk mënatuñu koo nekk ndax bu ngeen ma weddi du baax si yoon te doo bañ ko ma weddi bàyyi koo fa nag dem xombal di fa ñaw doon ab tayaar di ñaw di woy ci woy sëriñ Touba di wax ci addis yi ku nekk naa sëñ Mor Kayre moo neex baat moo mën a ñaw moo rafet moo di ko wax maam Cheikh Ibrahima Fall di laa wax moo ko fa fekk ne ko Mamar mu ne ko waaw mu ne ko demal sëñ bi yow da nga doon tànn lu xanaa boo demee dina fekk lu mu la fa tegal mbooloo mi ñëw ne waaye da nga doon wudd lii booba nag ku ñu wax Ibra Njiliw moom moo jëkk a dékk Maam Mor Kayre ay loxoom ku ñuy wax Demba Diop. Baye Moustapha Sey Baye Demba Sey ñoo ñu doon taaliba yu mag yama xamoon ci jamono yooya ñu sës ci Serigne Touba mu ak yi ku ñu wax Yebra Jeng ci kuuj boo booba ci taaliba yu mag la mu ne ko loolu di sa mbooloo dellu ba ci sëñ bi wax ko ne ko mbooloo mi des na ba mu demee wax ko noonu mu ne ko dangay dem ca réew yi jegam ya boo demee dinañu lay jokk ci yow ba nga ne doyal na mbaa boo dul di nga am lu bari mu dem fu ñuy wax njokk jógee kay rek yii. ñu ko doon màggale mu jógee fu joge jógee kay da dem njoq ba mu demee njoq taalibe séré yaag ña fa nekk ñëpp commencé di jéblu di jéblu ba yàgg mu daan ah man de lii taalibe boo xam ne yu mënta julli mënta wóor mënul baa mënul siin te nee naa dinaa dem àjjana jéblu naa séré ña kay gi ah naa ko waxi borom kooku daal na ko yëg daal dikk na ko mbàkke de si naa mu ne ko lu mu doon mu ne ko dikk na doole de waaye ñama am de Mbàkke da nga koy xam mu ne nu mu demee mu ne mënuñu baa mënuñu siin mënuñu sangu janaaba te na nga jébbalu naa mu ne ko Mamar boo demee ku la dëkkee loxo nangul loolu daal moom xam naa ko ci sunu maam waaw ku la dëkkee loxo nangul mu ne jegam laa jaaye mbaamam deex yi dooti fi jeex doganteeg seex ma sàmmaane loolu la ca daal di teg ba mu ko ko waxee loolu la ko daal di waxal fa saas waaw ba mu fa jógee nag léegi ci teen nag la ko sëñ Moudou Moustapha jëlee njuq googee fekk amoon na fa taaliba yu bari sëñ Moudou Moustapha daal dina ko fay yëkkate andi ko ndoni na ko Momar daa mel ni man jamono sunu borom daf maa xamal ne di nga dem jamono mel ni sam boo xam ne bi dañ ko ne da nga sàmmi mu ne man balaa maa sàmmi fa may sàmmi dama koy seet dama bëgg saak jur di lekk ba regg naan ba mandi du ruur du am rabu bu gis naa ko nag moom moom war fii sama jur dinañu lekk ba reg dinañu naan ba mandi duñu ruu du am rabuy fàdd man de Moustapha daal naate dootuma daal mu ne ko nu dalle la booba dikte leen tayif ba am fa ñetti tolle alal ba bu tollu alal ba ñetteel ba la ko wax loola mu ne ko nu dalle la léegi bi mu ko waxee ne ko nu dalle la mu ne ko bu ngeen waaw mu ne ko bu ngeen jógee fii jàll leen ca mudloo mberi moomee ndax kër gii ñuy wax àdduna day dara ump ko fi mu wax leen pakk yi ak ndog yi ak li tax a àgg ba tax ngeen man a àgg ngeen wax ko seen yoon yéen nag saadix ngeen ba noppi yéen waaw ba mu waxee loola mu ba mu waxee loola la ne man de dikkoon na àdduna ba faatu ba dem yowmal xiyaam ba gis àjjana yi ak lañ ñuy fayee waaye àjjana yi safaa jooje dama koo gis mu gën a kawe suñuy àjjana man sunu borom waaw jee àjjana xanaa nit da cee war a dëkk mu ne ah kay jee àjjana day waa kër Moustapha ñoo ci dëkk waaye daa demagul jamono. mu ne ko ndax man nga maa may su demee jamono ma ànd ak moom ba mu xàmmi ma mu a ko waaw loolu mënees na la ko may ndax àdduna sans taxawagut ñu ne ko moom ma delloo si na ko yow nag Momar yéen saa deex ngeen ba noppi waaye bu ngeen demee ngeen xamal seen ñooñ ne ko am juróom-ñaari at ñu yóbbu ci kër sëñ bi nga defa nekk defa nekk de fa nekk ba mu fa juróom-ñaar fukki at kat saa deex ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne yor sa alal di ko jox sëñ bi ba ñu xam ne ku bokk yow sëñ bi yaa ko jox sëñ bi taxuta saa Maamoor ne ko waa kon luy tax a saada mu ne ko sopp ak wóolu ki dox sa digganteeg yàlla wala sëñ Tuubaa da nga ko soppa sopp bu boo siyeen dee di ñëw mu jaral langa nga dee yow moom mu dund wóolu ji nag da nga koy wóolu ba saa bu la joxee ndigal rek ni ah sama ajo fajo dafa nga ne yaakaar ndigal ndigal loolu saa bu la ko digalee sa ajo fajo na loolu mooy tax ab taalibe jàll nañ leen góorgóorlu ci sopp ak wóolu mooy tax a saada de waaye du alal ju de du sëñ bi sëñ mu Tuubaa nag dafa wax ne li may fayee ku jëfe ndigal bàyyi tere ndax la ne moo ko boole ci moom li may fayee ñu ci sama wet su ma ko noppee gis xam naa ne kooka jëfe na ko feeg maa ngi ko gis nag jëfe gukk saa bu ma ko gis xam naa ne rek la ma santaan ma ne kooka nga ci mel ni góorgóorlu ci jëfe ndigal bàyyi tere loolu rek kay am solo de jëfe ndigal bàyyi tere te sant ñun ñi nga bi ne bii sëñ Tuubaa danoo tànnal Mamor Kayre Mamor Kayre di ko tànnal ko boppam nanu góorgóorlu bu baax te kat yàlla buy def wàllu yu wàllu yu wa defalu ko lu tax yàlla ne ko naa de wàllu yu buy def ab yonent yàlla yàlla defoo ko lu ko wax naa dinaa def ab yonent da koy def ci coobareem rek noonu nag suñu coobare la nu Sëñ Tuubaa booleeg Maam Mor Kayre nan leen ko gëm nan leen ko gëm te jàpp ko bu wér loolu daal daal leen di digal. jërëjëf Kayre Kayre moo doon joxe kàddu yu am solo yooyu ñu ngi ñaan suñu borom yàgg la fi te nga wér ak mboolem taalibe mboolem. Mamor mi ñu koy defal moom de teen boo xam ne bii du teex du jeex du dex teeg bu teen bu gàtt lool ndox mu neex lool bu jeex du teex du ndax moom la ko yàlla defal moom kenn la ko xam ne kii li yàlla def ci moom da ko génnewul ndax bi ko suñ Bàmba ne Mamar loo bëgg ñu defal la ko mu ne man nëbb sa mbir ba ëllëg bu ma génnee ñëpp xam ne Mor Kayré ñëw na moo tax mbiram moom da koo nëbb mbiram yëpp da koo dexeñ doom yi maam tax seen bi dañ koo nëbb dañ koo nëbb parce que xam ne Maam jàpp ci moom doy doy na am Maam Mor Kayré eh, doy na coslaay kenn la koo xam ne kii moom bëgg ci yàlla bëgg lenn lenn lenn mu sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa la gëm moom la yaakaar moom la bëgg kon ñun ñi nga xam ne waa yaakaar Kayré it bu ñu yóbboo jàmb bu bu dëgër te fas yéene jàpp Kayré te bañ a xool lenn lu mul ndax Kayré kat am na loo xam ne kenn amu ko yal nañ yàlla dimbali yal nañ yàlla taw ci barkeem yal nañ ko yàgg def na ngeen yàgg a góorgóorlu mag ñi jeex na gone ya fi des takku leen ca gembu te góorgóorluwaat yokk ak taalube kër goo fi gis muy riir taalube yaa ko def kër goo fi gis mu rafet taalube yaa ko def sëriñ si moom ñu lu may digal na lu baax ter na lu bon ko defee lu ñu daan ko am li ñuy dégle nan ci nekk li ñuy tere nan ko bàyyi kayre moom déggoo leen ci lenn lu xumb xumb déggoo leen ci benn loo xam ne lii lu nekkul yàlla la kon ñu ngi xam ay dongal la ñu itam nan góor-góor lu nekk ci loolu liggéey di jàmm yàlla di joxe addiya gëm sëñ bi doy loo sëñ bi yaakaar sëñ bi bana boole kenn ak sëñ bi kayre kat la ñu yaakaar addina ak àllaxira nan leen ko jàpp am na lu kenn amul barkam sëñ Tuubaa di siyaar kenn ku ci ne ci turam ak santam di ko jox wàccuwaayam ñu jaare ko ci télé bi ñuy wax Touba Vision te sëriñ Khadim Ndiaye yore ko ndax Serigne Khadim yore ko noo ngi jéggulu ci njuumtali nuy wax ci bisub sëriñ Mor Kayre mi nga xam ne moo fekk si woon Serigne Touba mennam moom ci waa Kayre jébbalu si ba yàlla dogal mu liggéey fi tarbiyewu ba Sëriñ Tuubaa wàcce ko mu delluwaat xombal ñu di ko wax kayra àll ba muy ñëw ñu wax ne dafa dajeeg nijaayam mu ne ko sa bàyye nga ci buntu kër ga sol ak maq doomam boo fa jaare ne ne la rey na jaari ci buntu pot ba sëñ Mor xamal ko ne ko man fa ma jóge kenn du fa jóge bal di la rey waaxu ba ëgg si fekk waa waajuram toog yore fital gi mu jël tengam teg ca buntu fital ga waa waajuram dafa tiit lox ba fital gi daanu fi suuf mu ne ko ah yow de yey nga ma man de damaa defe woon moroom nga fekki waaye xam naa ne fekki woo moroom ndax boo ko fekki woon tey doo ko nettali waaye nag ndok man de sama wàll wéy na waaye ñi fi des ñu ngi ci sa ginnaaw may dénk naa la sama bopp loole bi sëñ moor jógee ci sëriñ Touba loolu la ko waajur loolu la wax waajuram waajuram tontu ko loolu kon moom la ñuy bis bi tey di fukki fan ak ñaar ci weeru koor képp ku yàlla dogalit nga wàcc cib liggéey rafet nañ ci yow njort ne sab liggéey nangu na ngërëm la la taxoon na jógit sun borom làqloo na la ko te ngërëmal yàllaa fi ne ngërëmal yonent bi ngërëmal sëñ Tuubaa te boole na yëpp làq kon noo ngi ñaan ci darajey sëñ Tuubaa képp koo xam ne ñëw nga fi mbaa nga jëf ci baa nga def ci saw ñaq ngërëm loole yàlla la suñ borom boole bi jaayi seel xaddim baax na jërëjëf sëñ Moussa Niang sant nañ la gërëm nañ la wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barak waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala julli ji mbokku taalibe ñu ngi yëkkat sunuy kàddu muy waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa di sant way jur yi muy ki tax ñu ñuy tudd tey di sëriñ Mor Kayre koy wooy Mamar Kayre wala Talla ndax bari na ay tur yu ñu koy wooye bis bii nag da fukki fan ak ñaar ci weeru koor la fi bàyyi ko woon wuji boromam dëppoog la 17 juin 1951 ci bisub dibéer sëriñ Moor nag askan wi mu maanaam ay xaal pulaar lañu ñun baro lañ sant ayara laaw ñu jóge woon nag loolu moo andi kayre waaw kayre daanaka booy xool amut ah ka ñu meññ nag muy Cerno Mouhamadou Baro moo jur maam Amar ak maam Malick maam Amar moom mii ak maam Malick biñ ñëwee ba Kébémer kayre Bangoñ fa la wàcc gor ko def fa ñetti at bayi fa maam Malick daal di fa jóge nag ñëw kayre Lambaay mu ci ñuy wax yin na la waral nañu naa amaram yéer yiir mu wàccoon muy ci xurwa ak akuk yéer moo fa nekkoon mu àndandoo donga yi ak mbokk yi wàcce fa dafa wàcc jàng alxuraan loole nag fa mu doon jàppee mu dem ba akuk yéer googa moo jebbi ñu tudd ko amaram yéer waaye sëriñ Moor mi ngi gën a àdduna 1874 bi muy ñëw si ku tedd gi seexul xaddim 1890 la kon dafa mel ni ci fukki at ak juróom benn ki la ñëw ci ku tedd ki ànd naa ku tedd ki nag fu ne waaye sëriñ Mor ab jànkat la woon daana yëkkati ay xasida ku amoon ab taar la ku amoon taxawaay la daanaka matoon na deux mètres lañ ko doon xàmmee nag ndax foto kenn xamul fu mu nekk nee am na foto waaye kenn mënul a xam nga barab sàngam waaye fii ci ginnaaw amoon na lu fi nekkoon ah mu daan taalif nag muy affaire poète ki njëkk a sëriñ tubaab mooy Samba Samba Diarra Mbaye Abdou Karim bokk ak maam Cheikh Sadie Mbaye nday ak baay Serigne Touba seexal ndooleen moom lañ doon wo wooyee ah Serigne lasraarkat yi ndax suñu borom mayoon la. ka ca topp nag mooy Serigne Mor Kayre kon Cheikh samba jaar Mbaye njëkk a way Serigne Touba sëñ Mor Kayre moo ci topp sëñ Mbaye Jaxate moo ci topp Moussa moo di caat ma bis ko ñu koy fàttaliku nag muy dafa dëppeg weeru koor moo waral ñu ko fiy màggal màggal gi nag defe nañ ko fu ne defe nañ ko Ndakaaru defe nañ ko Bawal muy jol defe nañ ko Taïf ay rek ci Taïf la waral nag ñu taxal ko andi ko Touba gii sëriñ Thierno mi wutu woon sëñ Mor Kayre le 17 juin 51 ñu demee ba nekk ci tawat ci wàccaay sëñ Abdourahmane Kayre bi nga mujj a di am caatam moo dama wax sëriñ mbakki Soxna Lo mu ne ko kilifa du toll fii ñu fi def ay yëngu-yëngu kon màggal gi dañu ko yóbbu Touba loolu la ma waral màggal gi ñëw Touba ba léegi ñu ko fi màggal kon loolu rek mooy kaddu yi bisu ñaan la ndax bisu fàttali ko waaju baax la. bi ñu xëyee wàcce nañu ay kaamil jàngi fi ay xasida ay salaatu ala nabi mu tombé koor nag ci liñ nekk nag mooy yëfu Cissé Cissé yi ak looyeen yi ñu wàllu berne ay daanaka bis bi weer yu mu tombeel mu weer koor nee nañ kat nit woor ba ngoon nga jox ko benn doomu tàndarma moo gën julli màkk junni dem màkk wala junni kon lu am solo la kon Touba Vision ah, seen vision feen ko teg leer na ndax sëriñ Mor Kayre c'est un visionnaire ndax kër gi kat li tax ñu naan visionnaire dëgg mooy sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma le 9 avril 1960 bi ñu lotee si waat Touba muy Baye Abal ñaan géomètre sëñ Sefal Baye góor sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Touba bi ci àndoon fàtte tur bi ñu lotee si woon kër gi muy fukki fan ak ñaar ci weeru korité bu bisu ba ci lañ defaat sanc bii mooy kon dàkk bii sëriñ Mor nag këram boo koy wër ci Sénégal na kër la am mooy kër gi kon këru cosaan la kees gee ngeen jógee muy sëñ Thierno Kayre tey mi njëkk a teg ah xalifa xalifa sët bi njëkk a toog mooy sëriñ Kayre doomu sëñ Bas Kayre sëñ Mor Kayre ñeent doom la bàyyi yu góor sëriñ Thierno mu mag dem na fi 48 ans sëñ Basiirou sama turandoo toogul ci xilaafa gi 94 la nelaw. sëriñ Mouhamed Yazali sëriñ Dayman moo ju sëriñ Mamour Kéré bi jàng 97 la nelaw toogu ci xilaafa gi sëriñ Abdourahmane muy am caatam dugg sëriñ daam Abdourahmane Lo di sama waajur moo fi nekk 98 ba 2021 le 5 septembre 2021 kon yàlla fayal ñu leen ko ñaan nag képp ku ñëw ci bis bi ak tawat yoo fi mën a andi yàlla na suñu borom saafara ko ci barkeb Cheikh Mor Kayre ci barkeb Serigne Mbacke Soxna Lo ci barkeb Serigne Sèye Mbacke Gaynde Fatma ci barkeb Cheikh Modou Moustapha barkeb Serigne Touba barke Mame Cheikh Ibrahima kon sant nañ leen gërëm nañ leen jërë ngeen jëf. صل وسلم على Touba Ndamaatu dañoo ñëwoon fii ci waañ wi bëggoon koo laaj eh, màggal gi lan moo ko waral ak eh, tey nu seen waañ wi demee nii moom lañ lay laaj sëñ Basiiru na noo koy gisee. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ne si turam ak santam di leen siyaare waaw lii de bisub sëñ Mor Kayre tey eh, moom la mbokki taal wi ñëw fii di xam ni sëriñ Mor Kayre kenn la woon ci sëriñ Touba. liggéey gi mu liggéeyoon sëriñ Touba nag ba suñ borom dogal tey bisam ñëw ñaar fukki fan ak ci weeru koor gi moom lañ ñëwaat fii tey eh, di ko oh, di ko di ko di ko màggal mu mel ni mbokki taal bi nga gis ni ñoom ñëpp soo ba tey ñu ngi fii di góorgóorlu fas yéene eh, fas yéene jagal bis bi rek ci eh, turu sëñ Amari mi nga xam ni mooy jiite fédération waañ bi yëpp nga gis ko ni saa yu ñu xëyee soo ba ngoon jot nekk ci lu di sàkku ngërëma sëñ moor Kayre rek ànd ko mbokki taalibe yëpp nag di ci sàkku nag maanaam suñ borom defal nañ ci lu kawe suñ jot euh, di sant ñëpp nag ci tuuru Serigne Thierno Kairé mi nga xam ne mooy xalifa tey kër sëñ Mor Kairé ànd ko ak i rakam euh, jëwriñ ji Serigne Khadim Kairé ñoom ñëpp ñu ngi fii ci euh, kàddu salaamaaleykum wa rahmatullahi

salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Touba Vision mbokki réew mi mbokki julli mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu nuyu di leen sant di leen gërëm te rafetlu seen tawaay ji bi suñu war kayre bi bokkoon ci mag ñi nga xam ni dañoo ànd sëñ Touba bi dem si géej gi fi leen bàyyi woon dénkaan leen maam Thierno bi ñu bisee mu jaar leen na ci ñi dem gànnaar moom suñu mor am na fa diir diir la suñu tubaab nag gànnaar yëpp ma nga fa foofa newoon ba nim ñibbisee ceyeen ci la wax ne way naa sëriñ bi fa gànnaar way ko fee fa jolof ba ñëw fi Jurbel ma way ko way rakkam yeeti kon loolu mooy xam ni teewoon na gànnaar ba ci ceyeen foofu la yewi ko wala euh, sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu joxe ngërëm ngërëm nag mooy lu jafe mooy loo xam ni ku ko am rek ñàkkatoo dara ndax boroom xam-xam ñi dañuy wax ni wërsëg ñeent la nee nañ bi ci gën a néew mooy alal ci poos mooy mooy bi ci gën a néew ba ci topp bi ci gën mooy jàmm jàmm ngën ji wërsëg ba ci topp mooy doom ju baax ba di nga xam ni moo ko ñeenteel te mooy bi ci gën mooy ngërëm ngërëm moo dajale xeeti wërsëg yëpp kon suñu marqué loola jële ci sëñ Tuubaa di la taala anu nafaana barakaat yi moo tax ba bi saay rek baatin mu doon jëmm joo xam ni am na fukk sëñ Tuubaa tegoon ba am na bis bi bi bi mu yooyu ko jaar xombal ba maam Cheikh Rafal woo ko Cees ne ko moor dafa am yett keef nekk yetti keef moom war ko mën a ñëw ci noonu ñi la daal dafa waat ñëw njaareem ci ko baax ki bi mu yëgloo ba gis ko baax ki da nga ne kooku mu ne ko waaw mu ne loolu seetaan nga mu ne man kat Mbàkke dama dama tëj am wéteel ma joo xam ni dafa jeexoon ci suñu Tuubaa tàkk dëgg la doon joo xam ni sax weer kër gi lépp lu fa mus nit masa mën a jariñoo day buub lépp وخير زلزالين

na ndey maam Amina Baay Seex Moodu Musaa bi ate جود زاد Gaza

a سواك القلب الخلق لمن لا ليس ما إلا لا لا إلا لا وسواك

jàng waay maam soxna lo aya aliman liqa dabil musafa محمد مبكي بحلا لا حاجات بمن أجادل بمن جاءنا بها وإني بها هذه المغفرة من لك Kaya ولكن هجنا عن سير محمد يلا يلا دليل محمد billahi yal na yàlla dolli leeram xayra rabbihi xayra yàlla dolli leer rahmaan rahim alhamdulilahi rabil barkeb Cheikh Moustapha Mbacke Mouhamed sëriñ bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi fas yéene yëkkati ay kàddu Ibrahima Fall teew si nan ci bis bii nga xam ne moom ngay taxawul sa maam ya sa wajur ya di ñaan sun borom subhaanahu wa taala may la fan wu gudd lool wu ànd ak ak wér yaram doon nga yii nag jaar te bis bi rëy na réy goo xam ne ak dara joo xam ne lépp lu fi waay sàkku sun borom dana la ko defal ndax kat kiñ koy defal boroomu ngërëmul yàlla loo xam ne Sëñ Tuubaa ko gërëm kon bu donga yi laxasaayoo sëriñ bi bu baax a baax muy la nga xam ne moom la mag ñu baax ña doon wut ci sëriñ tubaa saabatu rasul yi doon ko wut ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loole de moo leen taxa a bàyyi adduna bàyyi ndey bàyyi bàyyi dëgmal yàlla dëgmal sëriñ bi fas yéene am ngërëm mbaa nee kon lii muy Abdou Aziz Diop yàlla na suñu borom dolli ay leeram te tax ci barkeem nee seen jéego yi di ak seen positif bi ak seen pas-pas bi pas-pas boobu yi nga xam ne Aziz fasoon na ko topp sa ginnaaw di ko liggéey sëriñ bi ba suñu borom dogal mu daanoo ci waar wi nee nañ yéene jooj nga xam ne moom la yéene woon moom leen fas yéene àggale sa ëtt bii waxuñu boo dem garat boo takk Abdou Aziz Diop fa mu tëdd yàlla na ko mbooleem waa bar sàq yëpp di puukaroo xam ne bis bi yegsi na xéewal yi dotti ko ba mu muy séddale saahir wa baatin yooyu sëriñ bi ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal dongay nee nan maase nan di ñaan ci kàttanu Cheikh Moustapha suñu borom fiq saw woon doo soppi jot ñoom ñii nag nee nan nga ñaanal leen ci barkeb sa maam li ñu wut ñu am ko te bu xat damm nee nan gisuñu dara ci àdduna lu tax ñu bàyyi lii ñu nekk te amuñu ngërëm baa ñu faat ci dara te boo leen ko ñaanale danañ ko am ngërëmul sëriñ bul sell lu ànd ak yenn taq-taq lu ànd ak yenn ndog àdduna yëngu jaxasoo na seytaane bari na wa rahmatullah ci turu Serigne Thierno mu wax ne rabbi ansilni munsalan mubarakan wa anta xayrul munsilin rabbi ansilni munsalan mubarakan wa anta xayrul munsilin rabbi mursalan mubarakan wa sëriñ bi nee na li leen dajale fii du asaar ngërëm la mu ngi bàyyi ko ci seex Seyxul Xadim jaar ci seex Muhammadul Mustafa te waajuram sëñ Mor Kayre gërëm na ko mu wax ne moom mii moo di bay faalam sëñ Basiroo ko wax de maa koy fekki làq na ngërëmam kon ngërëm yooyu yëpp day mel ni bu ngeen fi ginnaaw tënku ku am ngërëm ñëkkoo dara yar doo nga fi ne li ñuy digle ak li ñuy tere te Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa wax ne jub de baax na lool tënkoo ci li ñuy digle la ñuy te sëñ Bamba dafa wax ne ñeenti tomb moo fi ne bi ko juróomeel mu ci digg bi sa kanam sa ginnaaw sa ndijoor sa càmmoñ nee na li doom li ci ginnaawam di ko dàq muy ñàkk dana ko dab te du dab lële moom waaye nee na boo jógee jubal ci liñ la digal muy ndeejoor la nga war a jëli ca sa kanam muy dëpp ñëw dajeek yow ànd ak ndigal li la nga ba defal leen ci lu al ngeen ko suturaal ngeen ko yëkkati ngeen ko yàlla na leen yàlla yëkkati barki seel xadim jaamu yàlla ba jaamu yàlla jeex nag goog ndaw la ci gën a bëgg mën yàlla jox la wér gi kattan gi wërsëg saa boo tegee tànk yi bennoo la sunu borom defal na leen ko yàlla na sax a ah, dafa am nag loo xam ne sëñ Mbay moo ko waxoon xaw ma sëñ saa daf ne toll nan ne bàyyin wuutu woon ñeen barki seel xarit ndax sëriñ Thierno Kayre mi ñu tudd sëriñ Thierno mii moom laa laxa saayu ba ba mu defal ma ñaan moom mii waajuram defal na ko ñaan kon mën na maa wàcc sëriñ Tuubaa ne di ngeen làq ngërëm ndax lool la leen ñaanal yàlla leen yàlla lafal cat gunge leen te bu kenn muy góor di jigéen di mag di ndaw waaye dangeen ngeen cee rawati nag yéen dongay laxasaay yi ndax kat Cheikh Ibra ne na ñaar moo fi ne laxas tudd laxas sul nee diggante bi laxasaay doo nga fi xej laxas tudd lëma suul laxasaay rek a xej ci diggante bi ba yàlla jeex doomu aadama dafa oyof toyyu li mu bàyyi ko fu la laal li mu sosoo nga raxas ko saa buy génn adduna foo ko laal raxas ko waaye kon sëñ bi doomu aadama amul solo te lii muy ndaw gi da ko able mayewu ko de ñaar fukki yi ci lay yor wére ngi fi wére ngi fi kon mbokk yi dañ koy tënk rek ndax itte yi bari na waaye xol xolu sëriñ bi moo sedd moo toll noonu te bis bi it moo toll noonu ndax ki nga xam ne yàlla dogal na mu ñëw di ji sëñ Mor Kayre dina la rey waxu ba ak jël teen xam tedd la teg ko ca buntu fital gi waaye juróom day lox ba fital gi tege fi suuf